cohabitation am ci assemblée parce que quoi qu'on puisse dire dañuy xaar aussi les commissions habilitées génne résultat yi ñu xam ku gagné ak ku gagnéwul mais tey jii bu demoon bañ ba am cohabitation est-ce que sénégalais yi leen di seetaan di leen déglu tey jii ak toute la trajectoire bi ñuy jógee ba egsi fii est-ce que dina nekk une cohabitation saine <laughs> waaw loolu moom scénario fiction la hmm. waaw la réalité maanaam du am mënul nekk. du tax mënul nekk parce que la réalité de urnes c'est totalement autre chose loolu moom bokkul ci possibilité bi mën a nekk. Mm-hmm. bon maintenant on peut parler concept. Mm-hmm. Euh, cohabitation ba mu amee France. Mm-hmm. ñoom seen bopp dañ changer leur agenda. républicain pour que bu mu fa amati. dañ joge ci septennat bi def quinquennat inverser le le rythme entre législative et présidentielle. pour que loolu bu mu leen dalati. parce que dafa tardeel seen réew. mais loolu moom loolu sax. waaw soxna si bàyyi. waaye waaye waaye cohabitation c'est juste pour corriger. c'est un fait. waaw d'accord juste pour corriger. waaw hmm. <laughs> d'accord loolu ma bantuwaat ko. ba mu dalee France ñaari yoon. Hmm. la classe politique dañ ko réformer les institutions moo tax depuis Chirac abatu fa. Hmm. parce que xam nañ ne baaxuloon seen réew. moo tax loolu dootu fa am cohabitation ute itam ak pluralisme ci biir démocratie. par exemple nou si on félicite les listes qui ont gagné là. mais c'est que gëm nañ ne. am na pluralisme il eu une une de l'opposition mhm. ça va animer le dynamisme politique mhm. lii rek la loolu mooy dynamisme politique ci biir mhm. assemblée nationale mais mais cohabitation moom ña ko defoon muy France génn nañ ci réformer nañ seen agenda ba nga xam ne loolu dalatu leen ca Jacques Chirac la gëj a amee ba tey jii te ñoom xam nañ expérience bi demee déclaration Déthié Fall bi daf ci am loo xam ne day d'abord me réjouis de voir sur les résultats soxna si weddiwul li ma wax. te ñëwaatu ci ci ay waxu ci ay waxu opposition lay wax mais ci ay waxu yeneen lay wax mais waxul ci résultat élection yi. l'opposition la wax ne à 83 voix sur 165. Mm-hmm. l'opposition la wax. député. Ah, ñun je cite. siège je cite. siège je cite. loolu wax député non oui. quand il dit ça. <laughs> siège. quand il dit ça. il reconnaît au moins. il parle de l'opposition mhm. versus Benno Benno Bokk Yaakaar oui s'ils ont 83 nous avons 82 mhm. waxul Yewwi waxul Wallu opposition la wax mhm. nous sommes majoritaires ça le confirme encore au moins en attendant que ñu continue li am ba des ci waxu démocratie bi ngeen wax c'est la vérité waruñ yegg ci defar réew mi rek ba yenn niveau d'animosité yi Mais il y a des déclarations fortes qui ont été faites ici dans le pays. Il faut qu'on soit vigilant et j'ai donné les exemples. Les journalistes agressés, les discours de haine qui ont été tenus, mm-hmm. mais on sait qui les a tenus. kenn rek moo fi taxaw ne njiitu réew mi dafa bañ askan bi c'est un scandale inacceptable en démocratie gis nga nag au-delà des élections moi je parle par passion et engagement politique mm-hmm. pour mon pays pour le continent. parce que suñu bàyyee nit muy def un ñu di ko excuser le jour bu mu ñëw sa buntu kër di ko taal dalay bett. Mm-hmm. et l' intérêt général pour ñu préserver ko il faut que ay principe rek jiite ko. Mm-hmm. su ko ay principe jiitee li bon fu mu munti dëkk daa bon rek. Mm-hmm. ku wax lu ñaaw. agresser des personnes dans l'exercice de leur métier de journaliste mm. wala nga yëkkati safaan teg ko ci nit mm. mais c'est une catastrophe il faut le dénoncer d'où que ça vienne mm-hmm. donc ñun en tout cas on on travaille pour la préservation des acquis démocratiques mu des mm. li ñu fi wax sur les cartes d'électeurs mm-hmm. un système démocratique n'est jamais abouti à cent pour cent li ñu dund tey mu may ñu ñu toog fii TFM am sunu liberté di wax ya mm-hmm. y a vingt cinq ans c'était pas le cas dans le pays benn média moo fi amoon yenn média privé yi suñuy wax ñu di leen bundoo xataal di leen tere wax. Mhm. c'est des conquêtes progressives et collective mhm. moo ñu indi tey ba ñu am situation mais naka noonu tamit ci fichier électoral bi sooy le vote n'est pas obligatoire au Sénégal. Mhm. kenn du la imposer carte électeur amul fenn fu ñuy wan nit il faut nga am carte électeur par force ci réew mi ça n'existe pas. peut-être qu'il faudrait le rendre obligatoire. suñ ko rendre ku nekk soo amee sa carte d'identité dinañ la bindal ci sa carte d'identité que sa carte d'identité mooy sa carte électeur en même temps mais un fichier tu te déplaces pour t'y inscrire soo ci inscrire ñu bindal la en même temps une une la carte la carte électeur mm -hmm. peut-être nag pour la vitalité démocratique du pays. Mm -hmm. il peut être une bonne proposition. Mm-hmm. de dire qu'on le qu'on le facilite. Mm-hmm. et que képp kuy am carte d'identité ñu jox la en même temps carte d'électeur mm-hmm. et ainsi le montrer comme une forme d'obstruction à l'expression démocratique d'ailleurs processus yooyu société civile bi daf ci nekk opposition bi di ci nekk les décisions qu'on prend des décisions collégiales et collectives dans le cadre du dialogue national li mooy li wax ji li des mooy nañ kañ suñu démocratie ñu koy kañ ko ndax suñu démocratie am na des administrations une administration crédible capable d'organiser des élections où dans un pays, mhm. le régime en place perd sa capitale mhm. et l'accepte. C'est un luxe en Afrique. fii dafay am c'est un luxe même dans d'autres pays loolu nag ñi nga xam ne quand ça les arrange ils disent que c'est très bien nous avons gagné le peuple sénégalais a sanctionné mhm. et quand ils perdent ils disent que c'est la manipulation de l'administration loolu faw mu jeex il faut que ñu dindi loolu te tous les observateurs doivent leur demander d'avoir un comportement responsable et républicain mënoo soo gañee Saint-Louis ne gañe naa soo gañee mm-hmm. Dakar ne c'est magnifique soo gañee Thiès ne c'est une sanction mm-hmm. et quand tu perds ailleurs mm-hmm. et quand tu perds les élections tu dis que attention oui à Mbour euh, a un changement non non non c'est les mêmes règles du jeu qui vous font gagner ailleurs qui vous font perdre à et donc ça il faut qu'on l'accepte et comme je disais gentleman agreement bi foofu la nekk évidemment respecter askan bi c'est mm. mais ñi seq mbir mi ci seen mat ñoom rek ñoo mën a jox une face mm-hmm. boo xam ne elle n'est pas elle n'est mm. la démocratie sénégalaise en tout cas c'est ce que nous appelons de tous nos vœux euh, dans ces élections il faut que vous acceptiez que Bon, on va attendre les résultats officiels parce que ça aussi c'est important de le dire. Important. Je le réitère. Euh, la, la, tête de liste Mimi Touré a parlé en tant que dirigeante mm. de sa de, de liste mm. qui est la liste de Benno Bokk Yaakaar. nee na man li ma jëlee. Mm. ci samay mandataire lii la ma jox. Mm. loolu am na sañ-sañ bi. terewul nag les résultats officiels. Euh, fa mu war a génne fa lay génne. Mm-hmm. su génnee ñu constaté ko mais nous nous avons une forte confiance. parce que nous avons constaté la réalité des bureaux de vote. Alors, et ce n'est pas contesté. wax na ko cohabitation bi moom bu leen ko sax xalaat du am assemblée nationale mais pour sénégalais yi nga xamante ne aussi euh, def nañu seen choix.